merci beaucoup di côté de la régie alors mi ngi noonu euh, rapport 2013 bu inspection générale d'État moom la fas yéene waxtaanee parce que euh, rapport bi def na 16 mais jamono yi waxtaan boobu dafa soulever waat moo tax ñu invité kenn koo xamante ne une parti prenante la ci yëf yi ce n'est pas exclu également beneen jotaay ñu invité waat beneen partie prenante boo xamante ne day day ñëw wax ci kii bi donc ci cadre boobu noonu la ñu nekkoon pour leeral euh, l'affaire des 40 véhicules de la présidence dëggantaan sénégalais comprendre de quoi il la demee dëggantaan Salif ma bàyyi nga poursuivre ak questions ñuy wax ci kii bi mooy que ni euh, ñu ngi wax xam nga affaire dossier bi ni affaire relation Sénégal ak Arabie Saoudite lay soulever waat yow yan rapport nga am ak autorité saoudienne ba mu yomb la ngay dem di jëlee foofu ay quarante véhicules di ko jox état du Sénégal. Hmm. ak euh, yan dossier nga jot a lijjantil état du Sénégal foofu ci Arabie Saoudite mooy ci wala ci pay naar yi. d' abord dem Arabie Saoudite wala Dubaï wala feneen jëndee footu indi loolu c'est donné à tout le monde sénégalais ou pas mm-hmm. borom oto bi c'est une société privée mu ngi saam ay am ku ñëw ne ko ñaata mu wax la boo fayee mu jox la kooku soxlawul benn particularité. am facilitation aussi. amul benn dañ la koy jaay. ma ne Mbaye Guèye mii AMG du mu ngi ci kaw autoroute bi. boo ñëwee oto yi fa nekkoon yëpp boo ko nee ñaata boo fayee mu jox la ko moom loolu la fi nekkee jaay rek la fi nekkee ku ñëw ku jënd mu jaay la c'est ah mais xam nga fii bëri na ay concessionnaire yuy jaay oto. waaw lu tax Ablaye Wade tànn la te ñoom Mbaye Guèye nekk fi ñeneen ak ñeneen nekk fi. waaw dégg xam nga urgence bi ngi doon invoqué urgence. affaire bi sous le sceau de l'urgence la nga xam ne yoon yi ñuy jaaree commandé xëy na xaw ma mais ah, ce que daf ci amul droit xam nga maa Ablaye bokkuñ dara. kon bu ko dee def mbokk taxul comme cas bi comme cas kii doomi ndey sonk la <laughs> bëgg naa waxal sonk Euh, Sonko jox na ko lu ko jomb bëgg na ko justifier man waxuma côté boobu man li may wax mooy man dañ ma sant te du c'est pas la première fois ñu sant ma. man Ablaye Wade sant na ma ne naa ko yóbbul gannaaw élection 2007 yi naa ko yóbbul huit cent personnes Màkka ñu dem Umra mu jël mboolem sëriñ si ñoo xam ne bokkoon nañ ci campagne am mu ne nañ dem ñaanal ko. mu yeggalee mandat bi mais man la ko sant pour pourtant ay Air France ngi fi ay nangam nangam ñoo am nañ fa compte ay agence de voyage du jeex ñu ngi fi man nag am naa agence de voyage bi ma ko santee man mu sant ko sama agence de voyage man sama bopp ma jël suma doom bi Baye Niass yebal ko mu dem ci Saudia seen bopp seen siège wax leen ko ñu luyee ko benn Boeing 747 jëmbo jet mu ñëw fii jël 400 personnes yu yóbbu bi ñu amee je crois deux semaines mu delloo si leen jël yeneen quatre cent personnes yóbbu ba ñu paree mu indi leen loolu leer la kayit yaa ngi fi photo yaa ngi fi vidéo yaa ngi fi télévision yaa ngi fi donc man lu demee noonu yaa euh, ci jamonoy Ablaye Wade liggéey naa façon yooyu ak présidence mhm. loolu bari na yu ma liggéey ak ñoom toujours à satisfaction kon nag mënuñ ko def ba mu ba yegg si ci biir rek affaire bi jékki-jékki am ay jalgati yële. te bii ma doon cinquième opération bi. waaw yëpp am na daal benn boo xam ne man la joxoon avion yi waroon a dem présidence benn bés ma ñëw ci benn kilifa boo xam ne booba kilifa gi militaire la booba sosoon na lool ci président mu ne ma ah sa affaire présidence gi de am na ñu fi ñëw jalgati pour pour nangu ko ci yow defe naa ne boo sàgganee dinañ ko jël ma xool ñooñe dem au lieu ñu jël Saudia bi nga xam ne aviation officielle la ñu ne mu gis koo xam ne daf leen a yombalal affaires yi pour ñu xam ne dafay gën a bari luñ ci tibbal avion bi dafa naaw ba N'Djamena mu mu dal mënatu la naawaat ñeem ab N'Djamena mënatuñoo dellu Sénégal moom mënatuñoo dem Arabie Saoudite ok mm-hmm. loolu am na fi ci ba loolu nag présidence mel na ni bari na fa yu mel noonu mm-hmm. bari na fa yu de mel noonu ñoo xam ne dañu fa nekk di jalgati d'accord waaye kenn ku ne la nga duggee présidence moom nga fay génne boo dee boo dee jalgati kat mm-hmm. jalgati gën nga fay génne waaye boo dee xool doo mos a jalgati doo mos a jalgati. d'accord est-ce que tey jii nii vous êtes dans les dispositions pour que ñu xool yëf yi euh, euh, ngeen toog waxtaan ci xool nuñ koy régler. waaw vous êtes dans les dispositions. waaw waaw d'accord man tey président de la république bu ma owoon ne ma affaire bi dama koo bëgg a danaa ko ci dugalal ay ak yombal. Mhm. ba ma xam ne man Sénégal moo ma gënal sama bopp. ndax bu ñu waxoon ne kaay leen dee pour Sénégal. maa ngi jëkk joxe sama bakkan ndax màggat koo xam ne yaa ngi bëgg am juróom-ñetti fukki at xanaa kay yow yaa gën a mën a joxe sax sa bakkan ka ki xam ne ñaar fukki rek la am amagul jabar amagul doom <laughs> amagul kër defagul dara. Mhm. man bu ñu ma ne woon tey dañoo mobiliser pour Sénégal dee pour Sénégal maa ngi njëkk ne man damay dee pour Sénégal. Mhm. man loolu amu ci problème man affaire bi 500 ngi nii mhm. terewumaa lekk terewumaa naan terewumaa nekk ci la ma ne woon di def la ma daan def changé wu ci dara. bu ma ooyee ne ma léegi nañ ko defar ma ne ko noo ko bëggee. na la booleeg premier ministre rek. pour quoi pas ba ah. xanaa man premier ministre laa gën a xam. Ah, parce que man euh, président bi Diomaye bërki démb bu laa ko door a gis laa ko door jox loxo bi mu ñëwee ñaseen man maa ko teertu ci bunt bi ak akolaat ko ñu ànd dugg et ainsi de suite mais euh, Sonko moom damaa amanteeg moom ay wëllëru yu bëree bëree bëri ci wàllu mbokk alaaji rawaan ngom expliqué naa ne sama maam Sidi Lamine moo jur sama yaay moom lañ tuddee Sidi Lamine mii yal na yàlla yokk leeram amiin moom moo doon sëriñu alaaji rawaan ngom ci wàllu lasraar am na yoo xam ne ba mu ko ko joxee ci la yéeg ba nekk wàll yu bañ di ko kii dégg nga donc côté boobu man sama yaay daf ma ne woon koo gis mu bokk ci rawaan ngom rek na ko teral rawaan ngom moo baax mm-hmm. dégg donc man sax sonk laa gën a euh, miinanteel ndax ñëw na sama kër ñëwati fa te bàyyi sama doom Pastef la bokk depuis le début boo ñëw ne papa man yaa ma jur waaye nag man Pastef laa jox bopp mhm. waaw kon nag ko terewu ma ko mhm. néew ma ko damay doog a yónneewu ma ne ko ne ko livre nga ay ci bismillah kon nag man loolu bañuma ko waaye nag buñ ma ignoré du ma ignoré sama bopp. d' accord alors Salif je crois que mën nañ plonger ci actualité judiciaire bi ah marqué par la reddition du compte le début des arrestations ci ñenn ñi nga xamante nañ leen tuumaal euh, ak yooyu noonu euh, yow leader d' opinion nga am nga ci xalaat ak xalaat par rapport ak euh, yëf yi fi mu tolloogu ak ni ñuy doxalee procédure waaw xam nga man reddition des comptes man kooku suma point de vue la naka jekk mhm. parce que déjà de 2004 2009 créé naa benn créé na ba tey mi ngi fi sax port bi mooy euh, benn institution privée boo xam ne contre lutter contre la corruption moo ko tax a jóg tax a donc ba ma koy def yàgg na man loolu mooy son point de vue man defaloon naa wadd benn kii ji nga comme seen tableau bii bu toll nii boo xam ne ni ma ko defee noonu dama ne képp koo xam ne gagné na marché dañ koy obligé marché ba bu dee par exemple chantier la mu def fa ay euh, ay kamera yuy daw guddeeg bëccëg ñu mën ko suivre sur le tableau sur euh, maanaam tof bi mhm. euh, tof bi li ñuy jël numériser ko du xam nga tof mhm. mooy tableau des opérations financières ok nga xam ne dërëm bu génne ci état bi fa mu dugg dañ koy mën a topp ba matérialiser wu bu tardé nañ xam bu taxaweet nañ xam donc loolu dama ko defoon pour ñëpp di gis lii xew te ba tey pare naa ko jox ñii parce que ñii bu ma daakoorul ci seen gisi nit ñoom damay jàppe sama benn copie lañ ci man man maay originalu patriotisme mm-hmm. patriotisme kenn mësu koo génne fii muy idéologie lu ma jiitu le premier août mille laa def front des alliances patriotiques mm-hmm. donc pare naa pour ay alliance léegi par parti patriotique yi ëpp nañ dix su ne au Sénégal. Mhm. mais réduction de compte bii nii dafa wuute bu Macky bi de. bii même bii nii gars yi seen réduction de compte bu ñu lancé nii dafa xaw a wuuteeg bu Macky bi xam nga bu Macky bi. man waxuma sax ne Macky am na. waaw non non waxuma Macky mooy réduction de compte bii man waxuma ne Macky sax def na réduction. de compte man loolu ah, waxuma ko. waaw ma dama expliqué tout. waaw bii dafa xaw a wuuteeg boobu xam nga bële moom traque des biens mal acquis woon ci politicien rek la visé foncier bi bu ci foncier bi ci lépp loo xamante ne benn citoyen lambda jënd na loo xamante ne waroon na jar cent millions mu jëndee ko vingt millions wala cinquante millions wala ñu fa état facilité la yenn affaires yi mhm. ba nga am ci terrain aéroport yenn yenn dañ lay traqué ah loolu ma bu ko gën a xam doo ma ko gën a xam di ah, ah compliqué ah, na déedéet yow journaliste nga ah. man acteur la waaw <laughs> acteur de la chose publique man mii di wax ak yow mhm. ba démb rek kër goo xam ne moog sama kër a dend jënd naa ko ñu bind ma redressement bi ñu ma bindee redressement gars yi naan ma ñu njaay ak neex la damay man loolu du ma ko def moo ko defee du ma nelaw man du ma du ma du ma ger léegi ki bind redressement bi na ma jox na ma jox rendez-vous mu jox ma ko ma ñëw toog ba mu génne dossier bi argument contre argument mu ne ma sonotaire na bind suba ma mite ca suba ñu mite ko pourtant dafa ma au redressement mm-hmm. mais jéewu maa def ko dama ñëw nekkoon ko lii ça relève de la chose jugée ndax lii ma jënd euh, borom jaayu ma ko tribunal moo ma ko jaay hmm. li ma tribunal jaay mu am euh, force de la chose déjà jugée hmm. amatul amul appel amul lii amul lii jugement tribunal baa ngi ni moom sax gisu ko woon ba bu génnee xool ma yow mi yaa wax dëgg man loolu je suis tout à fait ouvert. Hmm. ah man kay li may wax mooy. dama ne man maa ngi appuyer lépp loo xam ne. reddition de comptes. reddition des comptes de l' la ak ku ko mën a def ku mën a ku sàcc rek jàppale. voilà man kay li fi may waxee mooy mbaa yow it mboo bon ko woon ci ñi nga xamante ne dañu xawoon a jege régime bi am ci yenn terrain yi ñuy wax ndaxte gars yi ñu ngi tudd ay filaawo ñu ngi tudd feneen ak feneen ak feneen foofu laay waxee quoi. filaawo ak milaawo yooyu yëpp man. lu dul sa man lu mu sa xam nga yow seetloo Ousmane Sonko ñëw toog sama kër. Mhm. ma ne ko yow mii mu ne ma na ko wax nga ne dañ maa jox ay euh, suuf fële nga xam ne ci ñàgg ma ne ko ji nga foofu. 1975 bi xale bii di juddu bàyyi sa militant ci laa ko amee mu ne booba benn at laa am ma ne ko man ñëpp a koy dégg. Mhm. ma ne ko musuma jot benn maître ci état ngi toog. yéen ñëpp ngeen transmettre ko man dina man sëñ bi man lépp loo xam ne jubadi moo koy maye man Ameth Niass bokkuma ca te du ma ca mës a bokk. d'accord le retour de Macky Sall au Sénégal. Mm-hmm. waaw xam nga loolu xëy na yéen la bett man bettuma parce que mm-hmm. seen collègue boobu di Aïssatou Diop Fall. bi ma mujjee gisee moom nee naa ko na nga bàyyi xel ci lii dama ko ne K I D comme Karim. id comme idi m comme Macky te Macky mooy nekk tête de liste. mi ngi nii y'a deux mois na ko génnewaat man loolu wax naa ko bu yàgg. man li ma gis y'a deux mois yéen yéen ngi ci doo a yegg si. xanaa fi ma jaar ci politique mu ma mënta xam ne lii fii la jëm lii fii la jëm quand même. d' accord boobu noonu parce que donc euh, pour arrestation de Macky ndax d' accord nga ci wala d' accorduñ ci ñu ngi koy tuumaal rey yu bëri yi fi amoon. sa responsabilité par rapport tout ce qui a été non, non, durant ces deux mandats non non ray yu bëri yi Sonko la yu bëri moom moo waxoon ne gatsa gatsa pare ngeen a wala pare yorul armée yorul armée commandé la incitation à mais yor woon fetal di commandé wul nekk commanditaire commanditaire bokkul ci Sonko la Sonko sama doom mais Sonko la. mais c'est grave comme accusation. Mm, oui mais bien sûr. ayca dama mais est que du offense au premier ministre. nga ne ah waxoon naa ko de ayca ah, bismillah maa ngi nii ayca bismillah moom xam na man xam naa. Hmm. ah ca bismillah man xam naa biddiw moom fu mu laax Salif am nga beneen question d'actualité <laughs> man man lu ma koy kii ni mooy am na ay autorité politique yoo xamante ne dañ leen a tere pour ñu génn réew mi hmm. bëri na ci ay ministres yoo xamante ne tout récemment Cheikh Issa Sall dañ ko jëlee fële hmm. Mauritanie bu doon génn ñu renvoyé yow loolu procédure yooyu noonu looy rafetlu la mbala looy kii ni waaw man daal képp koo xam ne sàcc la daal nañ ko jàpp laa ci xam sàcc daal warta tall tukki warta tal sax dem këram waxuma la ak muy tukki d' accord pour boucler la boucle pare nga pour liggéeyandoo ak régime bi fi ne. ma xam nga magam juróom-ñetti fukki at nañ ko yooyu ci liggéey. man mën naa ko côté conseil moo tax orientation. côté moo tax wax loolu mën naa ko buñ ma wax naa ko keroog bi fa Jomaay mhm. nee naa ko bien que maa ngi am naa soixante dix huit ans ba soreetuma sax soixante dix neuf. Euh, du ma soxla ndax su fekkee ne yow Rolls Royce ngay dawal. Euh, yaakaar naa ne milliard milliard bi réeru la donc donc boo amee milliard ci lu dagan mën cee dund soxla woo dara mais pare naa pour réew mi saa yoo amee lu ub seen bopp ba ub seen bopp boo mu oowee walla nga ñëw ci man laaj ma danaa la wax loolu li koy régler d'accord te loolu mën naa ko lool di nga yii ñuy dugg ngur yii nii bi bu ma neexoon suba mbodiis yokk leen deux points Hmm. Ah, <laughs> ah, hmm. ah, waaw waaw ah itam. xam naa ko xam naa loolu. te yow am nga yaakaar ni ñoom ni ñu démarré am nañ fi six mois ñee ñu ngi naan opposition bi ñu ngi naan affaire bi doxagul doxewu ni ñu waree am ñee ñu ngi naan ñoom amuñu expérience ak affaire yooyu. yow ci acte yi ñuy xam nga Moody's dafa delloo gannaaw. waaw réew mi. Mhm. waaw mais loolu. xam na économistes yi nee nañu. waaw rapport Moody's boobu noonu bon euh, répercussions yi muy am conséquences négatives yi muy am du durée. maanaam d'ici quelques mois la après. du durer waaw du durer. conséquence négative ah, dafay durer. du durer ah, ah, nee na ci dafay durer déedéet ñi ko wax man. waxal ne man wax naa contraire. waaw day da en ce sens que. bu njaree yéegalaat mu yéegalaatal leen bu njaree wàcceewaat mu wàcceewaat leen. bu njaree bàyyi foofu mu bàyyi leen foofu. ñun ñun ñun économistes yi ñu ay professeurs d'université yu ñu interroger démb dañ ne ñaari conséquences rek la ñuy am mooy première conséquence bi mooy que ni fii ak jiir. fii giir Sénégal buy abbu ji xaalis dans le marché financier dañu yéegal taux d'intérêt bi deuxièmement bi mooy quelque ci weer yi di ñëw nii investisseurs yu bëri duñ nangoo ñëw ndaxte dañuy xam ne Sénégal mu ngi ci situation mais dès l'instant que ñu rétablir les véritables les euh, chiffres réels yi ñu ne moom mooy suñu économie moom moo nekk suñu PIB moo nekk le taux d'endettement du Sénégal gars yi dañuy ñëwaat loolu moom économie si waaw loolu ah, pour yow loolu du durée waaw li nga wax maanaam dañ ne ce sont ah, des conséquences éphémères nga wax nii lii daal moom du durée loolu daal éphémère d'accord loolu la ñuy wax de dama ne li nga wax nii yow Ah. lu duré la wala lu éphémère la. non du yàgg la ñu wax. loo xam ne dafay def nii kay. Mhm. loolu duré la. mais après dañ koy rétabliraat. waaye loolu mi ngi mel ni jaww ji jaww ji tënul ci ren. Oh. day taw di naaj di ngelaw. <laughs> waaye bul ne du duré. waaw ah, mais pour ndax bu tawul ngelaw bu ngelaw la ngelaw euh, def neneen. Mhm. d' accord day duré kay. docteur amoon nañu dama ne la mbégte dalal la. Euh, annotation moog àddina bi ñoo ànd. Mhm. même sa banque sax daf lay annoté. Ah. banque bi nga xam ne danga nga am juróom-ñaari yoo xam ne at mu ne nga dugal fa milliard nga am yeneen juróom-ñaari at yoo xam ne dugaloo fa juróom-ñaari dërëm dañuy tey sa compte mhm. loolu rek la lu durée la feeg yaa ngi dund loolu mu ngi am réew yi dañ même ay états dañ leen a reculer mhm. jëlee leen ci trois A A indi leen ci deux B loolu loolu lu durée la sëriñ bu dee lu durée loo xam ne waxtu ne mën naa def nii waxtu ne mën naa def nii loolu nga ne loolu du dara waxin la hmm? ah. waaw ah en tout cas ñee loolu la ñuy jàngale économie la ñuy jàngale waaye ñoom dañuy jàngale économie théorique mhm. man joxe naa ay conférence ba tàyyi FASEC xamante naa ak ñu bari ci économiste yi waaye dama ne la l'économie théorique c'est une chose waaye secretu ku lekk yàpp waaye da secret dama doon lekk mbuum boobu amul secret dama doon naan meew boobu amul mhm. c'est këretu ku lekk yàpp maanaam l'économie réelle mooy su tey jii calculer nañu ne gerte gi dina indi lu ëpp loo ndaw tuuti te taatu gerte da daan def juróom fukki doom léegi ñetti doom lay def loolu 47 doom yooyu manqué dafay tax mu di si yëgal la déedéet dafa lay wàccewaat. d'accord am nga ci ñoom yaakaar état bi ñii am na ci ñoom yaakaar. seen doxalin wi. am na sax ay relents de révolte relents laa wax waxuma nit ñi gàddu nañ yet waaye ñu ngi commencé di nekk ay xalaat ndax ku bëgg a dee wéqu mhm. doxalin wi baaxul parce que boo dee arrêté naa chantier yi yow mën nga arrêté chantier yi mhm. descos dem taxaw waaye descos xaalis ba chantier yi doon dugal descos mënu koo dugal mhm. boo nee waxee loolu usine yi doon liggéey ciment dàq wàññi di waaj a tëj Senelec ma leen daan jaay courant jëndatuñ courant mu làmbale te dafa jëloon ay engagement ne day fay ay ay euh, li mu am ci ay équipement basé ko ci ne ñii ñoo doon jënd ci man muy dem essence bi dootul jar ndax oto yi doon yóbbu ciment yi dematuñ ñëwatuñ yoonu ma koy boo xoolee léegi mu nga ne selew mën nga faa lal mat la sieste ba yeew te camion du la yee kon nag yooyu yëpp bu booloo yaa am problème te loolu ministre de l'industrie ñëw wax ne bu kenn génn fi dara ci mines yi jusqu'en deux mille vingt sept ñun dañ loolu bu mines yu tëjee ña fa doon liggéey tëj ainsi de suite banque yi kii naa nga loolu série de conséquences comme en tremblement de terre. Mm-hmm. plus euh, kii bi yéeg plus li bu yàq tremblement bi day daane taabal ji daane mën na daane taax mi mën na daane leneen donc ñoom liñ créé séisme la ils ont créé un séisme économique loolu nu nga wax sa économie yooyu ñu jàngat ci yaa y un séisme économique en terme économique loolu d'accord législative yi prochaine législative yan perspective nga ciy séntu man daal sama parti mm-hmm. la FAP joxe nañu ne nañ ba wateel le patriotisme mooy parti yi nga xam ne. Mm, seen moment bi CNRA daf ñu tere propagande politique de. déedéet waaye ñun man terewuñ ma ko. <laughs> mais je suis. déedéet je suis pas CNRA. <laughs> dama wax ne daal nañu wateel patriotisme bépp parti boo xam ne dafa affiché patriotisme man nañ fukk. ok euh, Pastef ci la bokk. Mm-hmm. d' accord docteur amoon nañu mbégte dalal la ci émission balance. Mm. ñu bàyyi la nga tàggatoo. waa jërëjëf. maa ngi leen di gërëm leen sant. yéen yi nga xam ne les yéenay la voix des sans voix donc même su fekkee ne man am naa voix. kon yokk ngeen ci une voix. may gërëm sama doom. di ko sant. maître Cheikh. ndax nee